asalaamaaleykum leaderu yoonu askan wi président Pastef maa ngi lay nuyu Ousmane Sonko maa ngi nuyu vieil ami Khalifa Sall maa ngi nuyu ma sœur di nuyu Déthié di nuyu monsieur le ministre d'État Habib si di nuyu tous les responsables du podium maa ngi ni wàccee aéroport de douze heures de vol waaye dama ne woon ñu invité ma ma ñëw bu ñu ma invité wulit ma ñëw d'abord d'abord pour remercier Yewwi Askan Wi remercier leen ndax bi président Macky sàll yone ne nañu foqati suma mandat Yewwi Askan Wi dafa bañ voter contre le kidnapping de mon mandat kon loolu bu ngeen wootee tey war naa ñëw ba fi gërëm leen sant leen ndax nag as gor boo ko jàppale ci combat li ko war mooy boo taxawee di combat ma ne ci wetam ñun loolu la ñu xam li nga xam ne nag mooy mbir mi sànq am na ku ko wax li nga xam ne mooy aali këllëj gi te indi problème yëpp problème judiciaire foqati ay mandat arrêté ay jeunes par centaine benn mbir rek a ko waral mooy Macky président Macky Sall bëgg troisième mandat troisième mandat ce n'est pas possible ce n'est pas possible monsieur le président ma fàttali la phrase bi nga xam ne yaa ko waxoon yaa ko waxoon il y a douze ans waaye boobu président Abdoulaye Wade nga ko doon wax monsieur le président Macky Sall defaraatal sa monsieur le président bul topp ñi nga xam ne ñoo lay puus te bu yëf yi tàngee ñooy njëkk a daw loolu nga waxoon il y a dix ans kon tey man moom laa lay wax aujourd'hui li nga xam ne nag mooy taxawaay bi war a am muy l'ensemble des démocrates te defe naa ne am na waxtaan woo xam ne tàmbali na vraiment su la maestria de monsieur le ministre d'État Habib si ànd ko nag ak tous les responsables yi toog fii ñu toog waxtaane ko ne ñun ñëpp war nañoo ànd doon benn tous les démocrates ndax vraiment constitution bi dafa leer nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs kon nag président Macky Sall li la war la war tey mooy nga bàyyi nit ñi ñu dem ci ay élections des élections libres inclusives nga jël vraiment lépp tek ci suuf lii sa warugal mooy nga préparer élections yi des élections libres où tout le monde participera nga bàyyi xoxatal bi aussi nga bàyyi aussi xale yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi maa ngi nuyu l'honorable député Guy Marius Sagna mi nga xam ne aussi ci assemblée nationale vraiment jàmbaar la fa kon looloo doon kaddu yi voilà di leen nuyu di leen gërëm ak votre permission nag comme le vol était long ma mën a dal di yeeweeku maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf